ca jërë ngeen jëf mbokk yi ñi ngi amaat mbégte bu baax a baax ak contentement jàkkaarwaat ak yéen comme ni leen koy toppale lépp loo xam te ni moom moo di actualité lu jëm ci làmb rek mbokk yi di leen ko toppal waaye rawatina jëmm ji nga xam ne moom la ñu seet si naa ne miin ngeen ko suñuy écran muy 5 tonnes dof bi ku ne xam ne ne diggante Balla Gaye 2 ak ki nga xam ne boobu di Tapha Tine mu nekk combat boo xam te <laughs> mbokk yi daa <laughs> leen di ngeen gis lu yéeme tey ci 5 tonnes dina leen wax kii daan jël bi ni muy demee fu muy amee toog leen ngeen déglu 5 tonnes tey bu baax a baax a baax a baax a baax lit motivation la nag ak Fekke TV cinq maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa lay fay di wax ginnaaw bi sant yàlla julli si yonente bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di wax 5 benn ndaw bu jur 1997 sixième mois troisième jour hôpital Ndamatou 23 30 xam si fier di présenté woo loolu bëgg dafa yëpp bëgg àdduna di bëgg géej waaye di bëgg képp koo xam ne yaa ngi bëgg 5 di baalu àq ñëpp si tamxarit bi xam di wax tamit xam nekk na bisu mbégte mais nekk na tamit bisu naqar ndax ci lañ rayoon waa ko xam ndax boo dee xool Ousseynou ak Assane mhm. waaw jarbaat yonent bi sëtu yonent bi lañ xam nga ci lañ leen rey kii ñu ngi ko rey suur tamxarit kii ñu rey ko lan demee tamxarit mooy mhm. waaw mu nekk reyin wu ñaaw ñu nekkoon ñu rey fa fukki bakkan ak ñaar ñaar fukki bakkan ak ñaar hmm? waaw voilà kon faaw nit ñi tamit di bàyyi xel loolu ko xam hmm. ndax boo gisee ñun maa ngi bi ñu nekk daara dañ daa bind xul naam wa antum daaxiroona hmm. di ko jaay ñetti juróom xam nga xam ne waaw bi nga nekk daara ja xam ne da ko cere bi nga njëkk dang ngay boole du laal sa bëñ day tax nga fekkee déwén xam yàlla musal si jàngoor yi am ci at mi yëpp ñeneen ci la tànn ñuy dem déwén ñuy dem kii mais xam nga léegi presque ndeysaan jeunesse bi surtout ñëpp surtout sama genre gi xamuñu luy cause bi dañuy dégg tabaski wala korte wala dara duñu xam lan moo tax loolu fête boobu li ko waral mm-hmm. mais tam xarit daal pour man du bisu mbégte quoi comprendre waaw du bisu mbégte quoi comprendre mm-hmm. waaw loolu daal nañ ko bàyyi xel bu waaw damaa woor waaw mm-hmm. woor bi damay gis gars yi bari bu tam xarit jotee ñu ciy woor woor bi ci lan la ci waaw lu woor moom da see baax ndax dafa am fukk ak ñaar yoo xam ne ko ko ci mën a matal rek moo gën mooy mille lixlaas yi julli ñaar rakay tous mhm. tus ngalu mhm. say we mhm. séti jirim xama wa mo wa moy ray bop jirim rek moy si parce que seet ko jirim xana do tok sa kër di ko mu ñu yaay dem séti ko wa waxuñ la jirim bu dem ba mag na ko manal bopam xale bu ndaw boo xam ba fa ñak papa quoi wa wa non non ñak papa rek wa ñak papa comprendre ak deuxièmement séti ci ku feebar waaw wa ak troisièmement séti ci siar ci borom xam-xam xam wa yoy daal dal. ko ci mëna def ko ci matal di nga fekke déwén te suñ borom dina la dina dina la taxaw daal waaw. ñu ñëw ci li nga xam ne moom moo di actualité jëf ci li nga xam ne lool nga laalee biir bokk askan bi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan waaye ñu ñëw ci le 21 ci diggante Balla Gaye 2 ak Tapha coow li bari ay vidéo fuité coow li bari. waaw le 21 combat bu neex la xamal combat boo xamante ni ñu ngi koy xaar. vraiment ñu ko tëgg ñu mën làmm lañ. Mm-hmm. comprendre mooy waa Alburax ñu ngi leen di sunu grand frère ku ci mel ni Assi Ndiaye ku ci mel ni Baye Ndiaye waaw ah, vraiment ay ay nit yu mën làmb lañ quoi vraiment xam nga. ay loolu xam nga tey. Ah, yaa ngi dégg. non man moom ma leeree xam naa du njàmbe ndax moo gëj a sango njàmbe lay def na 3 moom yàlla xam na loolu waaw man moom damay sango samay galaaj rek gën dox samay soxla man moom mooy loolu quoi mais comprendre di wax daal ju neex la joo xamante ni comprendre ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi koy ñu ngi koy kii xama yaa ngi dégg waaw ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi siy jox gaa yëpp rendez-vous daal la 21 incha allah rabi daal. Balla Gaye Tapha Tine coow li bari ñi naan Balla lay daan ñi naan Tapha Tine lay daan nga def benn sortie Sénégal yëpp am fu ñu lay xaar. waaw di sant ku ci mel ni waa Guèye Pro Business gi ma fekk xam nga au passage ñoom laa waroon tijjee ndax ñooy sama premier sponsor. non da ngay def ndànk yaa ma soxla man soxla fayoo ma dërëm da nga ma jël interview man fayoo fayoo ma dërëm kon dama bëgg. maa la génne boo xëyee man la. waaw d'accord ba nit ñi di la woo man la. yaa ngi dégg sant waa Guèye Pro Business bu baax a baax nekk en face Sane Ndiarème xam nga lu nekk ci wàllu électronique ñoom dañ cee ay quoi comprendre mm-hmm. ay iPhone yu nekk qualité xam nga lépp daal nekk fii nii en face stade Ndiarème daal vraiment boo fi ñëwee xam nga géejawaay di nga am loo bëgg rek incha allah. mais Balla Gaye Tapha Tine coow li bari. Balla Gaye Tapha Tine waaw. nga def benn sortie boo xam ne dafa viral Sénégal yëpp taxaw di xaar di déglu 5 tonnes ñu naan wax ji fu mu ko jëlee foo ko tege nga ne bu ñu combat bi gën a jege si nañ la woo nga wax kii daal. waaw loolu waaw ndax xamul tax man saa amatuma lu muy prouvé ci côté boobu quoi te man du ma sëriñ. Mm. du ma sëriñ quoi mais yàlla suñu borom dogal na xam naa kër yu baax yi quoi. courtier nga. non duma ma courtier tamit comprendre yaa ngi dég ndax man boo dee xool ki ma ki may wax ki may wax boo dee xool Balla Gaye boo dee xool Modou Lo Modou Lo bu Ama Baldé daf ma wax ma génn wax ne Modou de day daan Ama Baldé kay koy wër ndomba xam nga kon kooku fenul mu waxaat ma Modou Lo Boy Niang Modou daan Boy Niang mu wax ma ko diggante Tapha Tine Eumeu Sène mu wax ma ko diggante Balla Gaye ak Gris mu waxaat ma ko diggante Sa ak Eumeu Sène ci laa génnaa def interview ma ne Eumeu Sène day daan Sa Thiès guy gi Ada Fass wax na ma ko waaw guy gi mën na ma seere moom xam may wax day am argument quoi man na mm-hmm. xam nga wax wax na ma ci lu leer mais wax blessure la lan la ko am na am na ko ci blessé kooku du fen magan billaahi du fen moom loolu am sax barke alxuraanu karim am na ko yàlla na quoi. non xam yàlla baax yàlla baax na yàlla na ci bari na 5 tonnes dafa dëgg géejawaay di classe Balla Gaye. nu may classé laay classé Balla Gaye Balla Gaye moo la koy apporté Balla di champion nekk mbër am lu ne ci lamb li ma am amuguma ko man moo ko classé après lan lan la may apporté lan la may la may apporté ah comprendre Balla Gaye su ma ko classé lan la may nañu bàyyi xel ne man géejawaay laa dëkk géejawaay laay ndékkee géejawaay laay añee géejawaay laay reere soo ma jël interview géejawaay nga ma koy defee géejawaay laay yeewoo sama lépp géejawaay la comprendre xam nga tey kii wax dëgg ak ki nga xam ne day wax ak ak kiiw loolu bokkul quoi comprendre ma la loolu faaw ñu bàyyi ko xel comprendre loolu faaw ñu bàyyi ko xel man Balla Gaye 2 suma grand frère la comprendre man su may wax damay wax de la part pour toi pour man li ma sentir man nit du ma tee wax quoi ndax man aw ma xaritu mbër fréquentu ma mbër lekkuma xaalisu mbër jaamu mbër ànduma ak mbër non non man comme yi dara man zël contre tous dama xam ne yàlla li mu wax rek ci alxuraan loolu laa gëm wa fi sama risque ma toxa doona mu lépp lu seen wërsëg alu ne di mu ci kaw asamaan man loolu laa gëm ah, dama waaw xam boo déggee ñu mooy comme suñu borom bu la naree teral mën na ko jaarale ci makan mais day fekk makan tamit mu xam boppam xam ne gëm ne yàlla mi ko may xam nga comprendre mu pour alxuraan ba ci aaya wa ubbi ay buntu xéewalam xam nga na Omar gëj koo gis nag daane sama waaji dafa daa ñëw daal di fay dem bi fa demee comprendre daan ne daan ne ko dama laa gëj a gis waa ji ne ko man maa ngi ci aay bi suñu borom wax fi sama risque ma taxa doon yàlla teral na ma comprendre man loolu laa gëm Balla Gaye 2 man du question yéene du question dara Balla nga xam nga makaan man du ma taxaw di wax loo xamante waxuma dama faral Tapha de mais du wax loo xam boo ko seetaan da naan cinq dafa mën a fen wala naa feexal man du ma du ma def loolu quoi du ma signal gauche à droite mais mun na ëpp doole ba pare tamit mu leen mën a xew mais dama ne la pour l'instant Tapha Tine moo ëpp doole loolu moom am naa ci droit dama wax tak am na ci ñu bari naan combat bu bu gaawee Balla Gaye ko bu yéexee Tapha li ma la mën a wax daal mooy barke Seydina Muhammad laa la waatal. billaahi wallaahi wa taalaay. yuuxu dina jëm fu ñu ko foogewul. waaw bu neexee yàlla suñu. jub fu ñu ko foogewul yàlla xam na loolu. <laughs> <laughs> yàlla na jàmm yàgg mais dama ne la. ñoom ñaar am na ku ci am di ko nëbbu quoi. waaw am na ku ci am di ko nëbbu quoi. fan loxo baay dama génnoon combat Sa Thiès ma la di ma def avant def devant public ma def ko am mais Sa Thiès Balla Gaye bii nii. barke alxuraanu karim bu samedi ci ngoon incha allah naa def interview may la diw mooy daan. yow mi barke alxuraan bu ma la waxee barke Cheikh Ahmadou Bamba magat ki may wax bu ne moom da ngay faatu suba ma jëndal la càngaay barke alxuraanu karim barke alxuraanu karim. ak ma suul sama nday dama waxul luy dañ musuma ko wax dama woo man mii damay faatu bu subaa nga jëndal ma barke Seydina Mohamed su ne moom da ngay faatu barke alquraanu kar bu fekkee du ma woo sa papa tay tay ne ko jëlal li jëndal ci makan càngaay jënd jënd jënd dugub jox ko mu defal la naka yàlla ma safara jëlaat dee bu ne woon maag yow dañuy faatu non kooku kooku man mooy sama sëriñ personnel xam nga ne su ma ko waxoon man su ma su loolu wax ma ko man damay gëm loolu quoi mais dama ne kooku du waxantu du waxantu mais dama ne la barke alquranu karim blessure bi lu am la barke Seydina Mohamed billaahi wallahi wa taalaay barke alquran takki ko am sax aj combat bi moo gën ci moom hmm? barke Seydina Mohamed <laughs> nga ne aj combat bi moom moo gën ci ki nga xam ne moom moo blessé bi ma ko waxee contre guy gi tamit nit bu waxee da ngay xam ndax guuy gi booba xam nga amu di jàppale na xam ta te acc combat bi mhm. ta bu la waxee fe wax bu feebaree nopp koy diw la fa mën wër mhm. da ngay xamé tamit suma grand frère ta man xam na la and ak nit mhm. man duma signaler signalé gauche ba ma bëgg nit lu ma wax rek man après ma gis mu def ay preuve quoi ndax ni solo woy téléphone la 5 tonnes nanga man ko ah, man xam na ben serigne bu ñaan ñaanu batine comprendre nañ dem fofu non comprendre suñu démé suma waxé amna droit man ko li mu wax mu mu tok mu dégg mu wax mu dégg xëy yow man ak saacee sax amna lo xam mu nga ko ci xam quoi comprendre man fofu la tax amna waaw man duma ma ci ma du ma wax lu nekkul quoi lu may wax ku mu arrangé yaa xam ku mu arrangé wul yaa xam man zël contre tous comprendre loolu laa gëm mais dama ne la barke alxuraanu karim billaahi wallaahi wa taalaay barke alxuraan kii makan lu la wax bindal téere ki blessé aj combat bi moo gën ci moom. kan moo ñaar ñëpp am na ko ci blessé ma kon ba samedi rek sam naa def interview. ma gis Balla gay di wacc ma gis ta Tine di waaw nah, ñu ngi wacc ñu ngi wacc kenn ko ne li nga xam Balla sax def open press suba nga day am na ko blessé da def open press suba waaw yàlla ko yalla defal jàmm même Tapha Tine yi ñaan yi yalla ni yalla defal jàmm open press lolu baax la yo sa supporter combat ñaan day jeex ci xex ak yoy non ma gan samedi samedi bu la nexé ya, so ñëwee may la di woy daanu comme ni ma defon ci Eumeu Sène te lu la wax diree koy dindi ki ma lay wax ma gan yalla ñu yalla defal jàmm ba samedi jàmm si ngoon rek waaw hmm? daawul ma doon xaar ni xam nga boobu la ñu ngi may woo comprendre mais xam tamit bëgguma tey ki tëgg làmb ji boo gisee sax li gën a tax sax defaguma so defuma sorte pour wax ni te man tamit ci dëkk bi laa dëgg te ki tëgg làmb ji tamit xam dafa soxla tamit nit ñi ñëwal ko xam nga nit ñi may woo ñu bari di ma wax kan mooy daan xam nga tamit du respect tamit nit tëgg làmbam xam def naa ko ci ëmb seen Sa Thiès def naa ko ñu mudloo def naa ko combat yëpp mais après dama ko def ba pare xam ne lii ma def ni sax du yoon ndax promoteur bi tey su tëggee lam nga génn wax tey su patee benn camp bi duñu jam xam loolu tamit waaw neexul quoi neexul quoi mais ci côté mystique ñoom ñaari mbër yi que mën nañ jàpp kenn ci mystique atteindre ko mystiquement comme li xewoon ci di euh, premier combat bi ñu ne dafa ni ñëw téye loxo beeg yooyu cette fois ci nan nga ko gisee hmm? non ki ki ki ki ki ma lay wax dafa blessé dañ koy jeeku hmm? barke alxuraan billahi lamba ji ken gam am na gàllaaj yàlla xam na loolu barke Seydina Mohamed. wallaahi lancé. wa me no wa waaw xam nga wax me magan xam nga tamit nit bu nit do ko sa simir man mi la wax li ma bu la doye xiya xam bu la doyul nga fay sa micro man ça interest ba ah. saraxu làmb yi xam nga saraxu làmb saraxu làmb ba xam nit nit warna nday ndey 5 ton nday de tay tay ci thailand tay tay ci mardi ñu fomu degi ba suba ci mercredi bi. moy sarax mais tey nit mun na tey ki ma la wax nii ne ki ma sëñ wax day daanu exemple sama sëriñ bi du sëriñu TikTok du sëriñu YouTube du sëriñu Facebook amul yooyu sax far yàlla deuxièmement a fomm lu ma la wax barke alxuraanul karim bu ñëwoon ñu dem foofu exemple barke Seydina Muhammad bu bu kooku ne ma day daan damay gën a sensé version may la diw day daan far foofu wàcc yàlla ne day daan. waxoon naa ko contre saa kees xam nga mais bii du ma ko ci wax. mais li gàtt ah, sarax sarax moom dafa yow combat saa kees 5000F la woon 5000F. te bii <laughs> moo xam ba ma la nga xam ay nii te boobu 5000F la woon ñaata kilo dugub kilo mboq. kilo ceeb nga boole ko togg lax lax saraxe ko loolu la woon combat saa kees mais combat bi boo a yomb sax. <laughs>

combat bu neex ngi noonu. li wax Boy Niang déggoo. Ama ah, Baldé. <laughs> mais Reug Reug. non Reug Reug moo man Boy Niang. Eh? man man Boy Niang moo bu galaj moko bu dole moko dakh beure yalla xamna lo li Boy Niang di beure daanu Reug Reug. li ki li Boy Niang di beure daanu Reug Reug. moko Ama Baldé Reug Reug. waaw loolu làmb ju neex a ngi noonu. làmb man Boy Niang nga ne. yalla xamna na loolu. ci li ma ni ni ni nii nii ah suñ bëri tay tay mom Reug Reug daan ko tay tay buñu beure won Reug Reug daan Boy Niang loolu ma maa la ko mën assuré. fekk la sa digganteeg booy ñëw ak dara jàmm laa am ñoom pigil laay dem Ama Baldé moom ci àdduna dootuma ko faral moom loolu moom du amati ci àdduna. dootoo ko faral du ma ko barke alxuraan ma def ndax laa métti. ma fekk ci mbéyum ma doon ko fa ma dóoree sama tëb sama bëri di génn sama bëri di génn ay alxuraan. non maa xam mais xam naa am na en bu ma jàppal quoi ndax ni ma dóoree loolu du dóoru kaf quoi barke Seexul Xadim. Hmm? ko faral ci làmb moo mën waa Pikine yëpp bu mu des Eumeu Sène. Reug Reug day fay sëriñ Reug day day fay sëriñ te terewul bëre. te te te te li problème mooy ñi muy àndal leen di jariñ quoi. da leen jariñ. kon booy ñaar ñi muy àndal jariñu. non loolu xëy na moo ngi noonu daal booy ñaar daal li ma la mën a wax mooy. demee gi mi bëri daanul Reug Reug comprendre man su ma nuyoo sama xaalis di ko teg pour l'instant bu combat bi nekk weer wi nii ci Reug Reug laa koy teg waaw. mais Reug Reug nee na ci deux mois la koy préparé. waaw non Reug Reug moom champion la quoi amatu lu mi prouver quoi comprendre ndax isaan toll ni nekk na champion de Afrique comme ni ñu ko waxee dem na fune ba pare nek enema nek ci beneen sport bo xamanteni xama c'est c'est normal mu mu mu mu fi yéen niveau bi nek nekk ñaan nekul fofu foofu noonu te c'est intelligent ndax lima gis dal moy xama nga mayenam dem na ci leneen ndax mooy deuxièmement moy legui nek na international xama dem na États-Unis def na lu xeex na MMA xeex na ligue gorakemen yooyu def nako kon koku dal amut lu mi prouver ci affaire sport quoi pour man ta wurtu ci am ben srs quoi Balla Gaye sama grand la sama grand la dañuy dañuy dañuy dégg dañu dañuy déggante mais semaine bi déggante wuñ ci wa assist tamit sama grand la sama xarit la. non man dama ne la. anduma ci kenn dem ci ben serigne anduma ci kenn dem ci ben serigne wax nañ suñu wax ñun ñepp ñu teunku waye man kenn duma saraxé ku ma nar saraxé sama làmmiñ milliard ma genn wax. ah ma daaw ñu ñuy saraxe. <laughs> ah gars yi wax dëgg gis nga yi di soog a fële nii gars yi dañuy saraxe man nak kenn duma saraxé man kenn duma appel whatsapp dem saraxé waaw ah! ah, kenn du ma saraxe de moom laa mi damaa ko moom. kenn du la saraxe. kenn du ma saraxe de. waaw monument la non waaw monument la ah. monument la comme respecté na comme ñëpp comme ah, ni ma def ñoom assisté ñëpp rek monument la man mom pour mo xol ko suma ma la waxee ne ngi ni di partager waxuma la deug damay fet yor naa numéro ñëpp kuma ci vocal ma tonde la way awuma ci xarit awuma ci kumay may fréquent awuma ko dem kërëm xawma ci budu kër kenn ka la mel hmm? yàlla xam na loolu man mom suñ borom dimbalé na ma lool mom ding ak personnalité bo mom hmm. suñ borom defal na mako ta duma ta duma forcer relation ak nit duma def lool hmm. ma duma def fuñ may tuutale quoi duñ kenn duma wa kenn duma ma quoi man du ma joobee noonu waaw fu fuma dem mom da fo gis na 5 tonnes ñëw na fa xamna dañ ko woo waaye man duma jek jek rek. daw laaxu noo ko mën a tuddee daw. waaw daw laaxu mooy xeeb ki nga doon rek lool rek laa ko mën a moy xép ki nga doon rek. moy jum né liru liiru daw laaxu la. waaw xeyna mom mi ko wax mo tax mu xam ko liiru liru isaan tol nii gars def nañ ko monument Guédiawaye ñepp nenañ moy mooy monument loolu wax man nak mom du sama monument sama grand frère la sama père la comprendre sama <laughs> ah, du sama monument mom sama ndax ki nek sama monument moy ki nga def dara di ko afi man ñoom ñepp amu ko ma ci afi waaw non man du ma laaj kenn avis ndax sama vie du ma ci waxtaan ak kenn ku la wax ne la si làmb ne la 5 tonnes daf may wax vie am waxu la waaye sama gaan nga yow sama namee <laughs> non mais rek yow da ngay jékki-jékki gis muy am waaye comme ma waxtaan te yow nii sama vie sa personnel sa personnel. looy <laughs> tàggu di sant ñëpp rek di sant ku ci mel ni xama waa géejawaay di leen sant bu baax di sant Père sa Fall xama borom géejawaay xama nekk nit ku baax xama kuy jàppale waa géejawaay comprendre di ko sant ma jaay ndox wala ndox yi lan jaay ndox ndox maanaam boo waxee jaay ndox wala jaay ndox <laughs> waa di wax de ñaan na ñaan moom du ñaan moom moom ñaan moom waaw ah, ah, mais loolu la xam nga àdduna moom doomu aadama man li ma gëm ci doomu aadama chaque jour sa kàddu bu dëggoo rek suñu borom mun na la may lu ne quoi. comprendre na mm-hmm. man ay kilifa façon kilifa boo xalaat ci àdduna daf may woo ma koy ma koy ma ci programme barki Cheikh Amadou Bamba barki alquranul karim barki Seydina na ñoo joobee ma noonu man comme ay woote ay alu man bu du ko maag boo yi nga xam ne nga lay woor alu ñu ne rëf As Njaay woon man joobee ma noonu de alu sëriñ bi bi lii laa bëgg daaw xam naa ko fay ma ma yóbbu la jeex na sekk noonu laay joobee ku ko mënul nga may woo ku ko mënul sama numéro 76 635 10 78 ministre bi nga yóbbu laax tamit te ñoo la jox kër gi fay waaw sant yàlla daal julli si yonente bi kër gi ngay tabax sant sama ñaari waajur xam nga ku laas la nekk de barki Serigne Touba barki dox ko bokk ci kànji man pour sànce bi mu yegg waaw kañ nit ku baax man kau kañ ku yor non waaw ñun dañuy kañ nit la ñu ngi koy sant nekk nit ku baax kañ di ko jox waa ci waayam nekk nit ku baax nekk jàmbaar dëgg maa ngi koy siyaar bu baax a baax magan doomu aadama xam nga dafa gaaw tase bu ma catu gars yi war ma may kër bañ ma may bu ma cat aw ma dara sant rek sant Cheikh Adama Sène jàmbaar Cheikh Abdou Karim Mbacke borom Makaarim Axlaq maa bu baax a di jox wàcc waaye bu baax mais magan samedi barke Cheikh Ahmadou Bamba soo ñëwee may la diw mooy daan barke alxuraan barke Serigne Touba li nga motivation Cheikh samedi ñëwal barke alxuraanu karim bu neex sama sëriñ bi barke Cheikh incha allahu rabbi barke incha allahu rabbi moo wax la diw mooy daan. képp koo nga site internet loo xam ne da ngay man nag xibaar waxuma ko pour pour dëkk bawal man su ma waree wax li ma sant rek laay wax man su ma ci bakk dee fekk tamit bëgg naa ko man du ma triser man du ma triser man ñoom Aziz Ndiaye bu daggee si gëstu laa damay dagg sama ticket dem fu seer toog wàcc ci ma du ma ñaan du ma saraxu barke alxuraanu karim man lu ma la wax rek looloo nekk si man. mais dama ne la combat bi barke Cheikh Ahmadou Bamba ki am plaisir di ko nëb barke alxuraan ak combat bi moo gën si moom barke alxuraanu karim. dañ koy daan. Hmm? loolu far force la. jërëjëf